kon nag ñu fas yéene ko ubbee ak ki nga xamante ni mooy incroyable mais vrai mais waaye laata lool ma nuyu leen rek Fama. Asma comment vas-tu laa bëggoon wax ma ne xama yem ci bab bi. Euh, Fama. Ba Ba waaw gis nga waa ba Poulou Dieng borom nag ak may wi. macha euh, allah macha allah yaa tàgg sa bopp noonu. waaw waaw ci ci àjjuma ji jar na ko. waaw gis nga loolu en tout cas maa ngi leen di nuyu euh, di nuyu nanaan nanaan mën naa la paasan bigi di nuyu aussi nos amis fidèles di ñu xaar tous les vendredis di leen ziyaare ci ji waaye tamit Asma nuyu suñu xarit sama sëriñ sama xarit ah sëñ maam Thierno sëñ Thierno depuis Pekes moom ak soxna Maram bu baax a baax ñu ngi ñuy seetaan di ñu ñaanal saa su nekk. macha allah seen ay ñaan ko soxla kon nag jërë ngeen jëf yal na yàlla fay leen ko. Hmm. Euh, Biggi oui naka mu. maa ngi sant bu baax. yow sa a noir neex na ma def. waaw noonu la Tijine moo fi jaar. bonjour à tout le monde et on commence voilà. Aïcha on retrouve tout de suite Biggi dans Incroyable mais vrai. alors Bigui euh, laata rek ñuy dugg ci càppaacoli mbir mi mhm. actualité oblige mhm. euh, dégg nañ fi euh, Sumbulu juum mhm. ci li nga xamante ni mooy benn plateau de télé sénégalais yi nag ŋànk ko yaakaar naa ni moom génn na baalu on a une vidéo laata rek ñuy ñëw ci yow ñu seetaan vidéo bi te ñàkk salaam à tout le monde jàmm ci képp ku jot ci vidéo bi di ñaan tamit njéggal ngir émission ngonal bi ma def ba tudd ci villageois wala àll waxeewu ma ko benn intention bu ñaaw wax dëgg fa yàlla ndax fii ko fi sa yaay jógewul ci village sa papa jóge na fa wala yow sa bopp nga jóge fa waxuma ko it pour xas ndax tollu ma nen ba war a mën a xas kenn wax dëgg fa yàlla juste dañ doon sensibiliser fi feebaru coronavirus bi toll wax dëgg fa yàlla am na ñoo xamante ne xamuñu sax feebar bi dugg na fi wala bu ñu ko xamee 10 pour cent nan ci leen ba ñu xam feebar bi fu mu toll cent cent ndax nag bi ma juddoo ba tey maa ngi doog a gis vingt ku ne tëj sa bunt ngir njàkkare xëy na nag njàkkare boobu laa doon waxee wala tiitaange boobu ci feebar bi ba tax ma daal di juum ma ñaan yàlla mu jégal ma ndax nag fii Sénégal la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te tuuti naa loolu pour dépasser benn nit waxatuma la ak mbooloo mu toll nii salaam maa ngi jege waaw kay nag uh, ku juum baalu te nit hmm. mooy juum kenn matul ñuy sàkku ci yéen rek ñaan ci bésu àjjuma ji ji uh, sàkku ci yéen ngeen uh, wàcc jégal ko ci ñun la bokk mënuñu fexe ba génnee ko ci ñun kon nag bi gi waaw mais Soumboulou la vraiment une actrice boo xam ne on peut yàgg nañoo vraiment donc des années ñu ngi koy suivre man bi ma nekkee xale ba léegi maa ngi koy gis mu def liggéey bu ama am solo depuis bi nga xamante ne am na personnage bu emblématique bu mu am benn bu mu doon waxal mbedd bi doon ko faire revenir à la raison dafa ma frappé parce que mu nekk koo xam ne day faire passer des leçons mhm. tey ji bu ñu demee ba yàlla dogal mu nekk animatrice ci télé peut-être que théâtre ak télé du ñu benn mhm. mais n'oublions pas que euh, on est tous au même niveau quoi vraiment dañuy toog ci télé mais des fois ça arrive ñu merde comme ni ko Paasan waxee wax loo xamante ni tey ñu ko wala dañ ko wax ba pare parce que émission bi ça a mhm. te nit dafay juum aussi. Mhm. comme elle s'est excusée qu'on passe l'éponge ñu passe yi jàll ci mu jeex. passe a tendance à oublier mhm. def ay plateau de télé ils jouent le même rôle que des acteurs. d'information c'est des acteurs faut pas que ñu jël loolu rek stigmatiser ko nit ki. ah mhm. moom na défendre banlieue yàgg na défendre li nga xamante ni mooy valeur sénégalaise day wax ne que Guédiawaye laa dëkk fa donc tey bu demee bay wax yenn wax yi nga xamante ni répété ko déjà rek moom ku ma gisee ku toog ci Soumboulou wax yow moom yéen a yem mhm. ci erreur bi bi mu ko defee ak quantité bi mu ko defee ak yooyu mhm. j'ai contacté Sanex mhm. ma woo ko téléphone hier mu message ma ne ma booy euh, télé la donc erreur day am nañ ko jéggal ñu passe à autre chose et c'est vraiment le même message que je vais donner ñu on passe à autre chose on demande pardon aussi pour elle donc les Sénégalais pardonnez-nous tous ayca ñu ñu wëyal ba léegi am na koo xamante ni moom euh, njéggal sax soxlawu ko waaye dafa soxla li nga xamante ni moo di euh, seddal fii nii ci euh, réew mi alors histoire bi nu mu demee du kenn ku dul waa kër Abdoul Mbaye Abdoul mbay bu ñu fàttalikoo moo nekkoon ki nga xam ne moo di premier ministre jamonoy nguur gu njëkk fii ci réew mi Sénégal Macky Sall bi mu tàbbee daal di doon fii président moom la wóolu woon jox ko léeg ngay premier ministre bu loolu weesoo nag dafa amoon benn awo boo xamante ni d'après les infos qu'on a eu dafa signé woon monogamie après boobu mu daal di am ñaareelam bi tudd bi la woon bi woon nag dafa am loo xam ne da ko métti trop mu ko doon méttitlu dans incroyable mais vrai regardez. asalaamaaleykum mbokk yi ku nekk si turam ak si man bilu laa tudd ma sant wan man may soxna Abdoul Mbaye tey dama xëy sama tey dama xëy wala dem sama kër papa sama yaay dafa wàcc liggéey altine si ngoon ñu rob ko talaata sama papa rek a des ci kër gi wéttalam depuis 65 ans génn na àddina altine sama papa di mag am 85 ans ren ma xëy suba war war fa dem war a seeti sama papa seet si lu mu nekk war ko jox ndékkeem toppatoo añam wéttali ko ma war a génn sama kër ubbi bunt bi taseeg ay juróom-ñaari huissier man leen nuyu leen sant leen man leen lan ma seen soxla ñu nekk dañoo ñu ko jël samay bagage si sama kër man leen ñu xew ñu nekk génne ma ay këyit daal lu ma ñu génne ma ay këyit ma liir ko war a jël samay bagage jël samay siis samay fauteuil sama doom yi ma ne leen dem si néeg ba ñu war a jël samay fauteuil samay lala ak ak bagage daal yu nekk si kër gi ba bëgg leen xamal ne kër gi nag sama kër la fauteuil yeeg siis ak kuddu yeeg ak bagage yëpp fi nekk sama sama samay bagage léegi nag man ne ba may woote Sénégal yi di woote dëgg bi di woote yaan yàlla ni mu àtt dëgg bi dama gisul fii lan moo war a tax ñoo war a ñëw sama kër di jël samay bagage di toroxal samay doom di di di di yàq sama der fii ci Sénégal foofu naa ne man bii la ma dama ko mérité wul ba bëggoon nag rekk mu leer ñu wax ma lan lan moo xew lan la lan moo am ba ñu war a génn say bagaas yi kër sama kër. sama xol fees na waroon nañ ma may sax man ma dëj sama yaay suuf si sedd si ay yëxam sama xol jeex na sama xol jeex na loo. asalaamaaleykum. maa mi ngi noonu ko déggandoo bi la woon nag day wax li nga xamante ni moo nekk ci xolam donc mu koy génne pour expliquer aux Sénégalais ce qui se passe réellement moom lañ déggandoo noonu mais aussi en même temps que vidéo bi Seneweb di ko publier ci seen compte YouTube doomam euh, doomu Abdoul Mbaye da doon def benn vidéo live sur Instagram wala sur les réseaux sociaux di expliquer li nga xamante ni moo jot xew papaam mi ngi ci biir pièce bi dans un salon qui est très très très très je dis C'est direct. alors actuellement ni nga koy gisee nii euh, mi ngi noonu Abdoul Mbaye donc presseafrique.com aussi mu ngi xamal ni que Abdoul Mbaye apporte des précisions suite à l'introduction des huissiers dans son domicile pour saisir ses biens ce jeudi 2 avril 2020 huissiers yi dañoo ñëwoon introduire ci biir këram moom ancien premier ministre bi di Abdoul mbay euh, pour jël ay biens ak euh, appartement bi nga xamante ni moom la am pour appartement wu jabaram mi di Bilowoon ngeen xamante ni moom ngeen doon gis sànq une décision à sa condamnation du accusé de bigamie opposant le leader de l'Alliance de la citoyenneté et le travail à son ex-épouse Aminata Diak Aminata Diak moo nekkoon ki nga xam ni moo di Awo Abdoul Mbaye dafa signé woon ak moom monogamie ak bien commun euh, explication yi nga xamante ne Abdoul Mbaye nag joxe na ko mooy nee na moom dafa recevoir benn groupe de sept personnes yoo xam ne dañoo dugg ci biir këram euh, par un cercle de monsieur Richard Diatta dugg biir këram euh, pour mën a génne li nga xamante ni moo di bagage yi nga xam ne moom moo fa nekk sous ordonnance bi nga xam dafa référé 24 janvier 2020 alors moom nag nee na je cite j'ai alors informé l'huissier euh, que j'avais régulièrement interjeté appel et qu'au terme de la loi les demandes relatives de la propriété ou la saisissabilité ne font pas euh, euh, obstacle à la saisie mais suspend suspendant la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet huissier bi nag dafa opposé wu à une fin de non recevoir et de et ses agents Euh, et ces agents ont alors entrepris de forcer la porte de mon domicile moom nag nee na dañoo forcer li nga xamante ni moo di buntu euh, néeg buntu këram et lorsque je leur ai signifié des risques de coronavirus je ne pouvais pas leur euh, ouvrir mon domicile sauf présentation de tests négatifs au Covid-19 maanaam déjà en période de confinement euh, nga bëgg génne nit ci këram donc day nekk problème te déjà moom balaa muy ubbi kër gi nga xamante ni moom yow ci boppam yaa ngi ubbi këram pour dugg ci biir këram da nga war a présenter loo xam ni wane na ni moom euh, nekkoo ku am coronavirus wala leer na leen ni amuloo coronavirus car il n'était pas question que je me jette en danger la vie des miens alors ils ont décidé d'aller chercher des renforts pour forcer ma porte donc dans une procédure ordinaire huissier euh, le huissier devant la résistance rencontrée se serait retiré pour requérir, requérir l'assistance de la force publique moom Abdoul Mbaye mooy wax ba léegi nee na je souligne que ce n'est pas la première fois que le droit et les procédures sont violés dans ce dossier par l'intervention d'une main invisible. Et euh, en outre, j'avais obtenu du tribunal de Dakar une décision, notamment un expert à l'effet de déterminer les indemnités d'occupation que Madame Diack doit euh, du fait de l'occupation de ma villa. nga ñëwaat euh, ci kàllaamay coach rek. voilà mi ngi noonu mais nee na moom dafa obtenir woon mhm. décision boo xam ne expert bi moom moo a mhm. bien vrai que bien comme le signé ak ki di jabaram bu njëkk ba mais daal euh, vraiment euh, perturbation yi aussi xam ne enregistré nañ ko et justice bi moom aussi am na yoon ak wàll boo xamante ne duñ koy def mais nee na conseiller mi euh, yi nga xam ne moom jot na koo joxe tenirul parce li gis na ni nga xamante këram la toog wala jabar ji moo toog këram te jabar ji dafa nekk ci li nga xam ne moo di dëcc bu ngeen gisee image bi jabar ji moo nekk noonu di bi woon mooy deuxième femme am nga xamante ni moo di Abdoul Mbaye moo toog noonu ñoom ni mooy ci seen salon ne dafa ragal lépp loo xamante ne actuellement mooy risque pour mën a lokk lii di jàngoro bi di Covid 19 maanaam coronavirus moom Abdoul Mbaye aussi mi ngi rappelé que ni instant bi balaa ngay dugg ci këram da nga a présenter papier boo xam ni daal tu es négatif au coronavirus ak euh, euh, parce que euh, suite de l'histoire xëy na dañ koy bàyyi ak yoon mi ngi def liggéeyam bu baax a baax ci lii nii. Mhm. bu dee am ngeen ci ay affaires yi ngeen xam ne da ko ci apporter parce que métti na quand même période coronavirus ñu lay génnee ak confinement. yàlla yor lu ma jaaxal. Hmm. ay sénégalais yoo xamante ni dañu soxla seeni këyit police. moo xam pièce d'identité wala passeport. dañ leen ne tout est suspendu ba corona bi jàll. sama hmm. carte d'identité dafa réer mënuma ko récupérer. waaw ñu ne leen euh, fonctionner avec li ngeen am. <laughs> kon nu justice di fonctionner te ñu ne justice fi ne nii fonctionner wu. on a un problème est xawma politique ou pas il n'était pas parti en tout cas à la rencontre je mhm. n'ose pas imaginer loolu la mhm. vraiment pas que ñu bëgg dal ci kawam def ni ni Sarkozy def Roubaix je fais pas le sincèrement j'ai même pas envie de faire lien mhm. je veux dire en tout cas yoon bi ñu ne dafa taxaw jamono bi parce que coronavirus yoon boobu waru mën a fonctionner nii et quand quelqu'un dit dañu toll ci crise ou virus mënuma nangu ni dugg sama kër mais à juste raison à juste raison mais est-ce qu'il y a la politique parce que bu ñu demee ba aawam bi di Aminata Diak moom dafa nekkoon di sëy ak moom signé ak moom li nga xam ne moo di communauté de biens ba a des trucs yoo xamante ni boo demee ba def ko am na yenn yoo xam ne tam da nga ko ci xaar parce que monogamie ñu fàttali mooy ku signé benn jabar amoo droit sëy ak keneen mais déggoon nañ ki nga xam ne moo di Bilowane mais après dañ ne woon dañoo déggoon ni que aaw bi dafa divorcé et presse Afrique aussi mi ñu koy xamal presse Afrique.com muy insister que euh, ki nga xam ne moo euh, ak ki nga xam ne moo di euh, Abdoul Mbaye donc xam naa procédure yeeg yooyu noonu man xalaatuma ni que politique mën na cee raxu jabar ji ci boppam moo soxla récupération de biens yi c'était peut-être même cas ak Ibou nga xamante ne moo nekk jëkkëru Adja moom aussi mm-hmm. c'est il a problème ak ki nga xam ne moo di aaw bi moom tam mm-hmm. il paraît que monogamie la signé parce que yeneen site internet yi ñu ñu ko gars yi. du yaa fi waxoon benn jabar moo baax. je réitère je vais <laughs> ñu di la bu baax a baax bi en tout cas yal na yàlla oyofal lépp incha allah lépp dellu dans l'ordre mm-hmm. yaakaar naa ni ñun Sénégal xamuñu toroxal nit kon nañu moytu bu baax a baax. Aïcha bu ñu jugee nag ci bigi dañuy daal di dem ci Fama Ba musique. Aïcha Fama ñu bàyyi rek nga tàmbalee te voilà Asma daal di koy wéyal rek comme ni nga ko waxee euh, daal ba tey ñu reste ci confinement bi seulement que nag confinement bi dafa am ay am na ay avantages comme am na ay néfaste xam naa balaa moo jeex moom quarantaine ñu def fële euh, ca Europe dana am ñoo xamante ne danañ xaw a sant sekk baa ñu am. nen rek lu tax baax. xool rek daal di koy yéene ñi nga xamante ne dañuy xaw a kii tuuti euh, pour dire que ne que confinement bi dina am ñoo xamante ne dafa avantage am pour gagner du temps ak ah, tamit le fait que nga rester enfermé ci benn endroit amoo lenn looy def loo def répétition lay doon léegi nag ay challenge rek la nit ñi daal di lancer. challenge yi kurus bi. gars yi jël leen kurus yi. waaw ay jurit lañu. Mm. jël leen kurus yi ku ko daaw def. kurus bi am ñu ngi def li nga li nga bëgg a ndax démb foog naa ko woor national la mm. bëri daal dinañoo woor uniquement rek pour gën a jéggalu yàlla suñu borom en tout yàlla na feebar bi saafara bu baax a baax mais challenge yi ba tey dafay continuer di wéy bu ci nekk ngay daal di gis TikTok sax moom def na challenge boo xamante ne euh, ay danse la artistes yu bëri ñoom Justin Bieber ñeneen ak ñeneen daal nañ ko woon def xam naa beneen yoon dinaa ko andi mais challenge bi home cover challenge la tudd euh, cover yi nag mooy reproduire les pochettes d'album yi nga xamante ne moom la artistes yi di def les couvertures euh, pochette album yi donc ñu bëri daal dinañ def challenge bi lii la hashtag bi mooy home cover challenge donc euh, ñu jàll ci beneen image bi ñu xool bu Carla Bruni Issa moom pochette album am mooy ki nekkoon jabaru Sarkozy. Mhm. Carla mi ngi nii donc jigéen euh, bi à droite moom moo reprendre li nga xamante ne mooy couverture bi c'est presque identique mhm. Mhm. Ah, ah. Booba moom moo nekk ci suuf ni Future waa ji tamit def na ne moom ak tatouage bi. Euh, mbaxane bi ak chaîne yi et tout. doole rek a fi nekkul. <laughs> Vanessa Paradis moom itamit daal dinaa def ah. Euh, Patti Smith ñoom ñëpp daal dinañ def donc c'est un non plus finir tu peux en voir yu comique nga gis yu réussir am yu am te ne tamit non plus. oh Laurie Laurie ah. Ah, ah, <laughs> yëpp daal dinañ koy reprendre all white. en tout cas bëri na donc boo leen defee hashtag bi nga xamante ne mooy euh, cover euh, home cover challenge vous allez voir pas mal de de de d' affiches. am na mhm. nag yoo xamante ne moom franchement laisse tomber ah. ñooñu xaw ma lu ñu reproduire. mais mais mais tu sais ça c'est vraiment bien lu lu may gis ci contre revers wu confinement bi mooy que kenn ku ci nekk da ngay tal sa morom c'est-à-dire tey ji su ma fawoon bigi damay toog sama kër tiktoké di bigi mhm. c'est magnifique parce que ça montre tout simplement mon amour et ma considération envers cet être mhm. et c'est c'est important artistes di ko defante seen biir ngir euh, clash yi moom a gënal clash yi doon am mhm. absolument Asma xam naa lundi dina andi hashtag yëpp nga xamante ne ça touche la musique pour euh, ñu daal di koy def. def en tout cas ñu dem ci Mame Mbaye léegi rek ñëwaat Mame Mbaye bonjour na nga def. maa ngi lay fay Asma. yaa ngi si jàmm. sant yàlla alhamdulilah. ñu bàyyi la nga ñëw ci point bi laata ministère di dikk ak ñu ci fu ñu toll tey. voilà di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk au rendez-vous 10 heures bu jotee ñu ànd ak waa ministère de la santé euh, ni ñu koy faral di defee dañuy ñëwaat rek ci bilan bi nga xam ne jot nañu ko am ni ki démb euh, la jàngoroy coronavirus gi am un mois euh, fii ñu koy dund fii ci réewum Sénégal téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar 127 la ñu jotee testé ci bilan bu mujj bi juróom ci ay cas yu positif la ñu am mu mel ni kon fukk ñoom ñëw ci wér 10 guéri kon nag bilan weer wi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom 195 eh, la ñu gis ne ñoo amee jàngoroy coronavirus gi 55 ñoom ñoo ci wér kon nag téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoom la jàngoro ji tëral eh, benn kaaw décès eh, la ñu am bilan détaillé bi laata ministère bi di dugg li ngeen koy gisee nii Dakar Ouest mën na wax ne 54 la ñu fa am Dakar Sud ñu am fa 40 Touba ñu am fa 26 Mbour ñu am fa 13 Thiès. dix lañu fa am euh, de centre Dakar centre ñu daal di fay euh, am li nga xam ne moom mooy 10 Géejawaay ñu am fa 7 Rufisque 6 euh, Pikine 6 Dakar Nord ñu am fa 6 Popenguine ñu am fa 3 Ziguinchor 2 Saint-Louis ñu ngi fa am ñaar ci ay cas Diamniadio ñaari cas lañu fa am mbaaw ñu am fa ñaari cas Sangalkam ñaari kaa lañu fa am Oussouye ñu am fa benn cas Richard Toll benn